mbokki Thiès salaamaaleykum mbokki Sénégal tey bés bi bés bu mag la ci man bésu mbégte la maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di gënam ñëpp te di jaajëfal ñëpp nag ci wuy si bi ma woote te ñi ma woo ñooy samay nit di samay ànd jàmm yàgg bokk ak man gis-gis ak pas-pas ñu tënku ci ginnaaw président Macky Sall mi nga xam ni tey dañ ko war a delloo njukkal kon gàcce nga amoon président Macky Sall fi mu indi réew mi ñëpp gis nañ ko te kenn dootu ko weddi waaye bi yàlla indee dogalam ñu war a tànn mu tànn. mu nous suñu mag suñu xarit le premier ministre Amadou Ba ginnaaw tànneef googu bi ci wanee suñu mbégte li koy mottali mooy li ñu def bu ko ñu def li nga looloo waral tey ñu lancé suñu mouvement bii fas yéene ñoo gunge ànd ak moom ba biir pare le 25 février 2024 incha allah ki ñu nag mat na ko mën na ko te incha allah dina ko attan te ngëneelu Sénégal la mën na ko ndax yarba

du ma yaatal nag ci jaar-jaar bi ci position yi mu occupé yépp ci post ministériel yi ba egsi ci premier ministre waaye li nga xam ni mooy nattuwaayu Sénégal fii ñu toll te président Macky Sall tëraloon ko ñu koy wax le plan Sénégal émergent bi ñu koy taxawal moom lañ ko jox bi waxtaan jotee moo waxtaan ak partenaire bi wuti alal yi jotee moo ko wuti bi mu nekkee président ministère de finances moo ko doxal kon tey bu ñu demee ba président tànn ko xam na ki mu tànn te xam na li mu bëggal Sénégal li mu bëggal Sénégal nag moo tax mu jox ñu Amadou ñu nangu ko mais nangu boobu dañ ci àndal suma xarit yii nga xam ni ma wéet ci biir Thiès waaye musuma wéet ci Sénégal fu ma tourné ñu ngi ci sama ndejoor fu ma turne ñu ngi ci sama càmmoñ yéen ñi nga xam ne nag yéen la Amadou yabal maa ngi leen di jox kàddu mbooloo bi di leen wax ni am nañ ci moom yaakaar ngir ëllëgu bi di leen wax nañ ci moom yaakaar ngir stabilité Sénégal ndax Sénégal moo ñu ñor afaan nag ma jiite ko te mu nekk fépp ci biir Sénégal ndax tey cellule yépp teew nañ dina taxaw laxasaay nekk benn ànd ak ñi ñu wara andal àndal ci biir bennoo bokk yaakaar liggéey liggéey bi gunge Amadou Ba bir palais de la République le 25 am nañ ci yaakaar nag te xam nañ ni yaakaar boobu suñu borom dinañu ko defal loolu yàlla na ko bul daaneel dañu wax ni kon nag ñu ngi ci yoon wi nga xam ni moo ñu yóbbu ca ndam la en route vers une nouvelle ère va s'ouvrir pour Amadou Ba président de la République Sénégal continuateur du plan Sénégal émergent Mali Grenier.